yaakaar naa ne fi ñu toll am na solo lool eh, laata muy ñëw sëñ waaw <laughs> am solo mooy at tarbiyatu ad diiniya <laughs> eh, mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci senegal ñi leen di joxeñ walla nit ñi sopp leen daara laal ji mu leen laal moo tax ba ci politique yi ñu xam bu ma tuddee bu fekkee mën nañ maa may ma tudd kenn mm-hmm. ba ci ñiy politique rek ci réew mi ku mel ne Ousmane Sonko mm-hmm. jàpp naa ne nit ñi bëgg gi nga ko bëgg ak topp gi nga ko topp lim laal daara lu loo xam nekk ci daara moo tax mooy mm-hmm. ak tarbiyatu ak diiniya gi nekk ci moom ak mm-hmm. tarbiyatul islaamiya mm-hmm. képp loolu faw bu nekk ci yow njot naa danga jub man njot naa da ku jub ngay doon kon comme li mu wax nii nitu daara wut am complexe réew mii waroon nañoo dem ba niti daar yi jiite ko ci buñ ko jiite woon ca njot naa ne ci lay gën a tege ci yoon ci lay gën a jubee ndax nit ki la nga nar a def boo naree luubal am na lu la yàlla wax soo naree sàcc am na lu la yàlla wax li nga nar a sànq lépp am na loo xam ne yaa ngi am mas masuliya bu rëy rëy la amaam Allah kooku soo ko dee bàyyi xel foofu nga jubal da ku jub ngay doon te it da nga xam li nga jiite mooy lan. waaye koo xam ne tey masalan nasaraan rek nga jàng yow xam yaruñu la ci yarub diine yow xamoo lu dagan xamoo lu làpp xamoo lu loo xam ne war nga ko def ak loo wërta def ak lii lu ci boo ko defee lu la ci yàlla di fekk ba ci bàkkan yoo xam ne mën nañuy dee yu bëree bëri yow doo ko yëgal sa yaram ca xam nga ne ëllëg bi ay zet bin xutilat question boobu yàlla mën na la ko mën na la ko posé comme euh, mag ñi nit ñi defee daara yooyu nga xam ne tey masalan sanc sanc bu dëkk daf fay tool ak yi demee noonu kooku boo jékki bëgg am ab nooneel ci moom doo xam foo koy teg wax lu xoromu dama koy wax lu xorom waaye dafa wax ne alamu man xasada nii laa yan sarim wa bisru man yuxibu nii laa yan xarim maanaam bu fekkee danga maa kii ñaane maanaam saw mettitu xol du dog mukk waaye soo bëggee sa bëtti moom du dagg mukk <laughs> asalaamaaleykum ah, asalaamaaleykum salaam wa rahmatullah waa sëñ ngi kooku man la docteur Moustapha Diop Eh, docteur Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar. lay ziar bu baax la. ñoo ngi lay jégalu ci xat-xat yi ñu fekk. déedéet am solo. waaw ñu waxtaan wi. waaw. léegi balaa ñoo tàmbali rek. di mbokk yi ci <coughs> ñu def ay développement yoo xam comme ni ko ma fi ma fi jut rek ni ñu ko waxee rek. Mm-hmm. maanaam di siyaare. Euh, soxna waalo moom moo fi jógee di ko siyaare mboo mbooleem doonu mbur yëpp di ko siyaare waa kër Sëriñ Saali di ko siyaare sama xarit yi nga xamante ne sama xarit bopp lañ muy sëñ Jili Kebe sëñ euh, Sohaybu Kebe ak sëñ Mourtada Kebe dal na ko suñu borom yërëm te tàbbal ko ci àjjana gën a kawe bu loolu jàllee yi li ko fi déglu di ko topp man na xam naa wet gi may jëlee hmm. mooy wet koo xamante ne dafay topp histoire u Sénégal hmm. di topp géographie Sénégal hmm. wet googu laa ko koy jëlee li tax ma koy jëlee wet googu mooy bu dee wàllu diine bi moom ñu nekk ci plateau bi doy nañ tëkk ndax seen xam-xam mate na ko seen seen xarañ mate na ko léegi nag Sénégal moom dafa bindoo noo xam maanaam dëkk bi dañ koo mooñaale ak tasawuf ndax bi ci tubaab yi nekkee même rapport yi doon am ak ak nit diine yi bi tarixa yi organisé woo moo tax yu bari mën a nekk kon donc nit tasawuf yi nekk senegal tey jii senegal Sénégal buñ ko doon buñ ko doon séddale ñoom ñooy jël part bi gën a am dëkk moo tax nit ñi le fait que ñu tënk ci ñoom loolu du hasard histoire la mm-hmm. loolu nag li tax mu nekk histoire mooy boo jëlee lu mel ni Jolof Njàmbur Kajoor Bawol bi ci buur yi jógee eh, nga xam ni crise société wolof mu ngi tàmbalee daanaka ca njaayum jàmm li ñuy dox di dox di dox ba nga xam bi ci tubaab yi ñëwee ak buur yi xeex yi doon xeex seen biir ak buur yi doon xeex sëriñ si léegi bi tubaab yi ñëwee dañoo mën dañoo gën a doggali société wolof léegi nag force yi nga xamante ne ñoo fi ñoo taxaw indiwaat diine yaraat nit ñi tarixa la kon ñoom moment bi ñëw ci histoire Sénégal mooy moment boo xamante ne daanaka société bi nit ñi jaaxle woon nañu amuñu woon jëmukaay nooteel bi amoon doole léegi force bi desoon rek mooy nit diine yi boo gisee sëñ Touba taxawaayam boo gisee maam El Hadj Malick wala maam Abdoulaye Niass mën ngaa topp daal ñoom ñëpp xam ni maanaam force l'islam dund bi mu dundaat yaatal bu ko yaatal mbindeef gis tasawuf ñoo ko liggéey loolu nag mooy dox ba yëg si nga xam ni loolu li mu leen may mooy am na ko wax ci plateau bi mooy samp yi ñu samp ay dëkk nga xam ne tubaab bi boobu euh, commune yi moo leen moo leen moo leen amal waaye nit ci diine yi dañuy samp dañu dañu dem ci àll yi maanaam sanc nga xam ne suñ Tuuba stratégie bi mu jëloon boo demee ci Alaaji Malik beneen beneen stratégie jël boo demee ci Mame Abdoulaye Niass beneen stratégie jël mais suñ Tuuba stratégie bi mu jëloon mooy sanc ay dëkk dëkk yooyu ni mu leen sañcee nag boo xoolee Touba dafa nekk ci digg bi nga xam ne suñ saal sanc ne Ndindi suñ moom sufa sanc Sindi Sindoodi ñu sanc Daaru Karim noonu nga koy toppee ba sanc muri yëpp ba front pionnier bi nekk biir Saalum bu génn yooyu yëpp ay sanc sëriñ la loolu nag ñu récupéré nit ñi sécuriser leen ba pare nag ñu nekk force boo xamante ne mën nañoo dina diine loolu tax tarixa yi rôle bi ñu joué ci histoire Sénégal muy waane nga force boo xamante ne force bu organisée la bu dynamique boo xamante ne mën naa taxawal lii ñu taxawal Sénégal moo tax jeexital bi di ñu am ci Sénégal du loo xamante ne dafa xëy rek am loolu histoire moo ko tëral gëm yi nit ñi nit tarixa yi loolu dañ ko mooñaale ak histoire Sénégal hmm. moo tax eh, da ngay gis république bi taxaw nii nit ñi sëriñ si taxaw nii bu sëriñ si woote woon nit ñi sëriñ si lañ jëm kon donc relation bi ñoom force lañ bu nekk ci Sénégal organisé wu depuis jamono tubaab ya même bi ñu amee indépendance tamit président yeeg régime yi fi jaar yëpp comprendre leen loolu kon donc loolu force boobu ni mu amee ay dëkk organiser nit ñi ñu tasaaroo loolu su ko bëggoon jëlee ci réew mi maanaam réew mi dara du fi def kon loolu bu man loolu rek laay duggee sëñ Fallou ci wàllu analyse bi di xaaraat euh, euh, euh, kàddu bi dem ci man sëñ Moussa waaw waaw bala ngay génn waaw def gis naa analyse bu am solo bi nga def ah ma ne yëg naa analyse bu am solo bi nga def waaw dégg nga li sëñ Saliou Baal ak sëñ Seydina Diop andi mhm. ba ci imam Cheikh Baye fële ca Kaolack kër Cheikh Abdoulaye ñas mais fiñ fi nga xam ne fi lañ jëm directement nii damay damay laaj ci réew mi. Mhm. li nga xam ne moom la tarixa yi am nga xam ne ci wàllu économie buñ téye seen loxo réew mi yëg ko ci wàllu politique buñ téye seen loxo réew mi yëg ko naka lañ mën a gise koo xam ne day yëkkati ay kàddu di wax ne maanaam tarixa yooyu tarixa yooyu maanaam mën lañ leen a jàppe sax ay ay ay ay sàcckati xaalis ndax vidéo bi ma jàkkaar lool ki ko wax dafa wax ne branchement d'argent yi ñu ngi koy defee ci weeru muharam ba ci weeru gàmm daal di wax ne bala may guddal damay bëgg rek sëriñ abibu Thiam moo ne ci wàllu machine bi mu tegal ñu vidéo bi ndax am réew bu fekkente ne bii dañoo woote woo jàmm nguur gu bees ga fa nekk sëñ sëñ Seydina tudd na ko di tuddoo diine ba kilifay diine yi sax jàpp ne ay nit yi diine lañ yoo xam ne alhamdulilahi rabbil alamina suñ amee alaaqa bu war a dox seen diggante kilifay diine yi lañ war a soxla ci ñoom buñ ko dénkee koo xam ne daa jàpp ne ñooña dañuy def branchement d'argent ndax ñoom seen àq jooju daan ca mën a jot wala duñ ca mën a jot kon sëñ Habib Thiam bu jàpp ne nga ñëw ak ñun ci déclaration bi laa ci ñu ciy ñëw sëñ Moustapha. blanchiment d'argent. bi ñuy def fii Sénégal xam nga loolu. lu ci ëpp ci blanchiment d'argent boobu. voilà ñuy woowee ay sëriñ ñoo koy mu ngi am diggante début d'année ndax li taxoon ko occupé mooy bu doon ci dañuy natt nit ci wàllu xarañ ak diplôme foofu du fa nekk ndax koo xamante ne sañ ngaa toog mais am naa juróomi doctorat sëñ bi mel ne son bi leerul allo sëñ bi bu caam waaw foofu rek laa bëggoon ñu ñëw sëñ Moussa waaw léegi léegi léegi li ma loolu li ma ci dolli mooy dama ne waaw ki nga xamante ne moo wax jooju waaw poste bi mu occupé waaw bu doon ci réew mu bu bu tege la. Ah. moom du occupé poste boobu. Mm-hmm. moom dañ koy disqualifié beneen bi ci def li mu wax maanaam boo déggee loolu ne ay milliards la xam nga milliards boo ko bëggee def trans euh, blanchiment d' argent processus bi ñu loolu ko am xel danga xam ne mënta nekk. kon donc ñaareel rek boo ci tënkoo gouvernement bi nga xamante ne nit ñi dañoo am ci moom yaakaar. war naa doxale si diggante ak tarixa yi nit ñoo xamante ne ñu diñ confiance lañ ak nit ñoo xamante ne dañ gisee tarixa yi gis gis bu rafet xam nga kuy kuy wax ni tarixa yi léegi ñu jeex am na vidéo boo xamante ne dafa wax ni tarixa yi léegi ñu jeex Sénégal loolu mooy koo xamante ne mënoo lire histoire xamoo histoire bi muy évoluer yow da ngay toog rek di wax say xalaat yoo xamante ne boo ko nattee ci wàllu xam-xam taxawul tarixa yi tey la gën a dëgër Sénégal sénégalais yi tey la leen gën a gëm te événement bii ñu ñu ñu ñu ñu ñu génn muy màggal Tuuba wane na ko kon donc loo xamante ne dafa nekk ci ci luy jeex du mobiliser autant de monde kon donc loolu kooku waxam yi ñuy wax gouvernement bi man sama gis-gisu bopp ñoo war a jël ay mesures ci moom mesures yoo xamante ne duñ ko doxalee sa digganteeg tarixa yi parce que dégg nañ li wax ci tarixa yi surtout particulièrement yoonu murit kon man loolu laa ci bëggoon a sànni rek sëñ Fall. waaw jërëjëf sëñ Moussa da ngeen euh, d' argent bi ñuy def fii Sénégal li ci ëpp ci blanchiment d' argent boobu. Mhm. ñuy woowee ay sëriñ ñoo koy def. Mhm. mu ngi am diggante début d'année maanaam diggante.